Euh, vous savez, comme disait Senghor, la méthode et l'organisation. Mm -hmm. On ne peut pas déménager une chaîne de télévision un jour. Mm -hmm. Aujourd'hui, pour préparer le déménagement, nous sommes sur un site de presque un hectare sur la zone industrielle. Nous avons construit les studios de cinéma. nous avons tous les plateaux de télé vont aller là-bas quelques bureaux vont y aller en attendant donc toutes les chaînes de tous les plateaux de télé vont y aller avant donc on a euh, pris 2 milliards 300 pour retaper l'ensemble des du, du site là-bas donc avant d'aller euh, donc dans ce dans ce chantier de cinéma comme on dit qui est presque construit, qui est presque à l'état donc de de de d'héberger donc la chaîne de télé ici de stv et les bureaux euh, nous sommes en train de préparer comment il faut déménager tout le matériel qui est ici reste ici et nous avons importé nous allons changer des équipements tout le matériel va recevoir la télé donc en quelques secondes on peut splitter et commencer à démolir donc il faut un investissement c'est-à-dire que les émetteurs les tous les tous les satellites et cetera sont en train d'être montés donc d'ici le 31 décembre tout sera fini et là ce n'est plus une maquette vous avez visité hein, vous avez les gens ont travaillé pendant une année deux pour retaper tous ces hangars pour retaper tous ces trucs que l'État du Sénégal nous a donné on remercie au passage l'État du Sénégal pour nous avoir octroyé ce ce ce ce, ce, ce terrain pour pouvoir le faire avec le port autonome de Dakar, avec euh, donc les domaines. Euh, les gens, donc l'administration sénégalaise a pu croire en ce que nous faisons. Et c'est pour ces raisons que nous avons toutes les facilités pour aujourd'hui travailler. ok euh, président dama doon laajte léegi. Mhm. c'est vrai que foofu yaatu na lool. Mhm. mais en dehors de 2S mën nga ñëwaat wax ñu lan lay abriter foofu ngay woowee les les chantiers du cinéma. Euh, Quand on disait cinéma et télévision, ouais. c'est pour permettre à toutes les sociétés de la place qui veulent de la production de s'installer, de faire comme, comme à la SFP, la Société française de production, et comme certains Français ont fait, ils ont fait des quartiers, ils ont fait des centres de cinéma où chaque producteur indépendant peut venir prendre du matériel, prendre des sites pour faire les, les, des tournages des sites comme Et ça permet au cinéma sénégalais et aux producteurs sénégalais d'être totalement indépendants. Parce qu'on ne peut pas tout investir, tout acheter. Il faut que chacun fasse euh, des choses pour compléter l'autre. Les producteurs doivent venir avec leurs idées, leurs scénarios, écrire, tourner. Et nous devons mettre à leur disposition tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériaux donc de tournage. C'est pour ces raisons qu'on a appelé ça les chantiers du cinéma. Donc ceux du cinéma Euh, faire euh, <coughs> un certain nombre de de de de, de productions peuvent venir donc effectivement pour faire le travail là-bas. est-ce que liggéey boobu sénégalais yi Aram est-ce que c'est des sénégalais qui l'ont fait technique boobu nga wax yaa ngi rendre hommage léegi ces techniciens ces jeunes est-ce que ce sont des sénégalais ñoom ñoo la li jàppale ci liggéey boobu techniquement parlant bien sûr. tout a été fait par les jeunes d'ici. Mhm. le Cheikhou Diop les Tafa Thiam dans le son et l'ensemble des jeunes qui sont ici les CI tous. ils ont appris. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire venir ouais. un Français ou de venir un Américain pour faire les choses que nous faisons ici. D'ailleurs, ils sont tellement, tellement forts <laughs> qu'aujourd'hui, euh, ils peuvent même choper les voleurs de fréquence. <laughs> Ça, on y reviendra, certainement. <laughs> Alors, euh, j'étais en train de vous dire, c'est vrai que pour le déménagement,